conseil municipal bi nag de Mbacké dans diversité ak dans sa globalité démocratie wax nga ko sànq monsieur le préfet du ñàkk xëccoo war leneen waaye la ñu yitteel mooy teg intérêt Mbacké suñu kanam acte bu ñuy posé fii incha allah li koy lal mooy intérêt Mbacké fas yéenewuñ jël fii benn décision bu méngoowul ak loolu fas yéenewuñ fee jël benn dërëm bu mu ba bàkkee moom pour jañoo suñu bopp loolu mooy suñu yéene tey loolu la ñu doxal mairie Mbàkke bi dañoo bëgg mu nekk une mairie transparente fii moom amul lenn luñ fiy def di ko nëtt wala di ko murmuree loolu nag dañ koy bëgg a teg au delà du conseil municipal au-delà des dañoo bëgg a teg loolu ci compétence mm-hmm. ci xam-xam ak ci xarañ pour que yaakaar gi waa Mbàkke am ci ñun te tegul ko ci leneen lu yaakaar ne ñun mën nañoo yóbbu dëkk bi ca kanam loolu waa Mbàkke am ci yaakaar boo bañ a tas waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di beral ak remerciement monsieur le préfet du département de Mbacké ak ay collaborateurs am di am mbégte ci séance bu mel nii sant yàlla bu baax a baax sant kilifa fi teew yëpp di rafetlu ni liggéey bi doxe ak ni ñu commencé liggéey bi organiser wu jaar ci yoon loolu la waa Mbàkke di xaar si ñun lii nag conseil municipal la conseil municipal yi fi nekk yëpp nañ jàpp ne dañoo ñoom ñëpp ay maire lañ fa ñu nekk dañoo war a xar seen tànk duggee liggéey ci bëgg-bëggu askan bi ndax mission bi ñu sas mission bu am solo la maanaam liggéey sa dëkk kon nag bu ñu ko yàlla boole ñun ñëpp dañoo war a xam mesurer le sens du vote des populations de Mbacké mesurer la portée des de la mission et de son ampleur kon na ci fànn woowu damay woo ñëpp rek ñu laxasaayu nekk benn say fii amul opposition amul pouvoir amul coalition benn bokk yaakaar amul beneen coalition conseil municipal bu Mbacké yi ñoom ñëpp ñoo bokk liggéey bi ñoom ñëpp ñoo war a accompagner le maire pour ñu atteindre objectif yi nga xamante ne nii moom la waa Mbacké di xaar si ñun li waa Mbacké di xaar si ñun moo ñu liggéey Mbacké ànd ko ci yar ci teggin ak ci sutura ñu liggéey dëkk bi fexe lépp jaar ci yoon tabax Mbàkke ak transparence fexe am ay objectif ay activités yu baax yu li mën a liggéey dëkk bi loolu la ñu ci yaxaar ñëpp li ci yaakaar ñëpp ñu jàpp ci maa ngi leen di gërëm di leen sant. Seen Faye wax naa ko sànq ci biir nee naa sama diggante waa Mbàkke bi ay dañ leen sant bu baax a baax sant waa Mbacke yëpp meeru Mbacke nag bu meeru conseil Benno Bokk Yaakaar bu meeru parti meeru Mbacke yëpp la. ñi ñu wooteel ak ñi wooteelut ak ñi wooteelut ñoom ñëpp lañ njaboote ñoom ñëpp la war liggéeyam. kon nag kon ñu ngi tàllal seen loxo ñëpp fas yéene ànd ak képp ku nekk Mbàkke pour liggéey Mbàkke seen xol seen na si yéen bu baax a baax maa leen di masawu coono ma waxoon naa jël kàddu gi rek masawu leen coono sant leen seen teewaay ak ak gërëm leen sama turu bopp ak turu conseil municipal bi yëpp.